ba tey ñu euh, nga xam ne moom lañ jagleel alxaaji Baara Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal ñu toog ak nag kenn koo xamante tey bu ñu bu ñu waxee ci umma islamique bi defe naa ne moom am na ci pàcc bu rëy muy sëriñ maam Cheikh mu sëriñ Xaadim Awa Ba muy président AIS mi lëkkale doomi soxna yi nga xamante ni mom moom liggéeyam yëpp ni kenn du ko présenté kenn ñëpp xam nañ ko moom la ñu seet si nag ci ndigalu ki nga xam ne suñu directeur muy Serigne Bounama Fati di ko nuyu di ziar bu baax a Allo Dakar seet si la Serigne Mame Cheikh ñu lay nuyu. ok ok jërëjëf jërëjëf gannaaw bi seet yàlla julli jënd sallallahu alayhi wasallam Assane ngi lay di jaar non di nuyu seen euh, directeur Bounama Fati ci liggéey bu rafet bi nga xam def ko muy taalibe di jambar ni nga ko waxee jërëjëf Eh, macha allah ñu ngi eh, préparé inauguration bi gannaaw suba lay doon ajjuma ji incha allah la vingt 27. tey nag jour boo xam ne dañ koo jagleel Cheikh Mouhamadou Lamine Bara muy alaaji baara nekkoon premier petit-fils Serigne Touba bu toog ci xilaafa gi. yàlla def bàkk bi ju toog gannaaw bi nga xamee ne murid yi seet nañ ko ba gis ko eh, moom la ko président bi fi nekkoon jamono ju muy Abdoulaye Wade jébbal teg ko ci loxoom. bi muy ñëw fii booba fii daan na fay-fay la woon waaye sëñ alaaj bi mu ñëwee yàlla won ko ci basira moo xam ne fii fi la fii fi la ñuy war a defee li nga xam ne moom la ñu war a def mu wax kàddu yu rëy ne dox leen dem leen bu soobee yàlla li ngeen bëgg da ngeen ko am wax nañ ko léegi loolu nag wilaaya la gu yàlla suma subhaana taala jagleel ko kenn ku ne xam na ne deux mille deux mille douze bu ma jumul ba mu fi taxaw ba mu fiy taxaw di teg xeer wi ak léegi yàggutu ñu samp fu lu mel nii muy Masaalikul Jinaan muy jumaa joo xam ne plus de vingt milliards teg nañ ko fi waaye kenn du sëñ Siid al Muxtaar Mbàkke ndax sëñ Alaaji teg na xeer bi waaye sëñ Siid Muxtaar moo ñëw génn milliards euh, la li ñu naan état continuité la mais yoonu sëñ Tuubaa noonu la mel lépp jumaa ju njëkk ja jaar sëñ Fàllu jaar sëñ Abdoulaye sëñ Abdou Khadir ba ci sëñ Saliou ba ci sëñ Alaaji Baara sëñ Siid Muxtaar sëñ Muntaxa tey gis nga ñëw àggale ko kon lii bu ñu wax continuité l'état l'islam moo tax ñuy wax kon ñoom comprendre nañ message ne jëf lay doon da ngay jëf dem keneen ñëw jëf keneen ñëw jëf dem kon tey macha allah dañuy rendre hommage suñu alaaji kon ke ken ken ken du ko fàtte ci njàmbaar ga ci modeste ga ci oyof ga ci baax ga wax mu ko ne daa don doon daanaka waajuram suñ fàllu mbàkke intervention yi mu daan def ci etabi, état bi ak ci taalibe yi ak ci njaboot gi ñëpp xam nañ ñëpp nañ ko ko sa dugg ci da boo masaan ñëw sax daanaan la xaaruñu xaar am na lu gën a gaaw la gën a gaaw mooy woote la lañ war a def lépp ñu def ko kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ndokk yàlla bi nga xam ne kon ñu ngi koy fàttaliku tey di ko delluwaat njukkal ci li nga xam ne moom la def ñaareel bi fii ñu nekk nag muy Masaalikul Jinaan di jàkk joo xam ne jumaa joo xam ne bokk mën nañu wax ci West Africa gi yu gën a mag ci la bokk bu dul ci Afrique sax la ñu war a wax loolu nag njàngat bi ma ci amoon ko barki dem moom laay waxat euh, lii am nii yéem na tubaab yi yéem yi li am ni yéem na tubaab yéem na naan li tax mooy lu mel nii muy jumaa ju mel nii ci ay 20 milliards ci réewi naar dañ ko daan gis bu dee ci occidentaux daana fa am boo demee France am na fay jàkk ñu financé yoo xam ne ak fa ak faneen Amérique ci ci ci ci ci valeur xaalis bu bare bare bare waaye loolu tubaab yi ñoo ko daan astafra naar yi ñoo ko daan financé yu mel nii tamit jëf yu mel ne bu doon lu dul diine tubaab yi ñoo koy def waaye lii lépp sëñ Tuubaa euh, da ko wax teeloon a xam teel gi nga ko moo taxoon sëñ Tuubaa teeloon wax murid yi ne leen julli ñëpp bokk ci Masaalikul Jinaan ne leen na ngeen am fulla na ngeen am fayda na ngeen farlu bàyyi leen xel ne nekk nit ku ñuul der bu ñuul bu mu tax ngeen ne da ngeen a war a gàtt dégg-dégg wala gàtt xam wala boog dañ leen war a saa su ne di leen yilif moo tax suñu waxoon ne fale si yuy jibu sawaadul jismi sawaad aw suwal fa xam yi loolu lam ca dam woon mooy xam ne xam-xam du jàggane dañ ko war a jéggaan nit ku ñuul da ko war a jéggaani saa su ne koom-koom du jàggane nit ku ko war a jéggaani saa su ne waaye li ñu mën tudde xam-xam yàlla bérlu ko kenn nit ku ñuul mën na ko am ni ko nit ku weex di amee koom-koom yàlla bérlu ko kenn ni ko nit ku weex di amee nit ku ñuul la ko mën a amee moo tax Sëñ Tuubaa teeloon na jàngal murid yi ci jamono yi jumaay njaare mi ñu koy teg xeer wi bi mu woote liggéey bi daa woote ne na kenn ku ne andi juróomi ngurdu ci jamono yooyu juróom ñaar xaw juróom daal am na lim mu joxe woon lim boobu joxe woon keroog waajur yi parents yi kenn ku ne da nga sa doom indi ñëpp mu kenn ku ne ko indi ba mu dajale ko ne leen xam ngeen lu ma jubloo mooy dama bëgg ëllëg lépp lu ngeen bëgg a ngeen defe ko nii bo boobaa nag dana tax kenn du leen manal ndax dañuy wax ne ku la mën a sañal la kon suñ tubaab moo njëkkoon a jox leçon benn moo tax depuis boobu ba léegi murid di comprendre ko ba lépp loo xam ñu ngi koy liggéey dañuy def li ñu mën tuddee travail collectif la ñuy def maanaam mbooloo mu bari ñooy ànd yëkkandoo tegandoo kon lay moo moo ñu may lu mel nii kon moo tax ma ne mm, jumaay Masaalikul Jinaan ndam la fierté la ci monde islamique waaye rawat nit ku ñuul l'homme noir l'homme moom fierté la ci moom ndax ku fi ñëw danga naan ñan ñoo ko tabax fan lañ ko tabax seen i moyens kon loolu ay leçon la ay jàngal la yoo xam ne may jàpp ne njàngale bi Sëriñ Tuubaa actuellement nii bu ci africain yi euh, doon ko wéyee ci ni ñuy solidaire ak ni ñuy liggéeyee boobaa duñ soxlaal tubaab duñ soxlaal kenn te pourtant am na africain yu ko bind sax yoo xam ne nee na Afrique bi ñu bëggee développé nañ jël njàngale bi Sëriñ Tuubaa njàngale Sëriñ Tuubaa lii la jubloon njàngale Sëriñ Tuubaa du caagee rek côté diine bi kese la waaye côté humanité gi côté social côté bu mën doon Sëriñ Tuubaa da ciy jàngale donc yi Euh, solidarité ci walu travail ci walu manam cotisation ñu ko bëgg défalé ci walu pass pass ak pass pass bi leen motiver japp nañu buñ ko défon afrique dana avancer kon ma sha Allah tabarakal motax tay ñepp am fierté ñepp am kontan ñepp am mbikté motax tay tarixé peu fi dajé mu di xaj tidiane tour AS bi xam mom lañ jité vraiment mu nek lu am solo di ñaan yalla señ mutax yalla fi yak tewet señ mam cheikh manam mo am ben question bo xamni rek bobu xamna concerné na la ndax yow mi jité AIS euh lekkolo doomi soxna yi maanaam ci tarixa yi nga xam ne bokk nañ ko ñëpp te ngeen bokk ak ñoom umu islamique bi maanaam yan taxawaay ñoom la ñu am ci li nga xam ni mooy la préparation de l'ouverture de la grande mosquée. macha allah laaj nga question bu am solo tarixa yi moom mën naa wax ne depuis conférence commencé ba léegi ñu ñëw ndax ñun AIS li ñu yitteeloon mooy la sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke rek dina an waxoon bëgg dama dégg murid wala xaadir wala tijaan nee naa jamono bi mu koy wax jamonoy jamonoy mondialisation la tombé technologie internet nga xam ne yàqkat yi dañuy jaxase tarixa yi waaye Sëriñ Sidi Maxtaar xam lu mel noonu wax nañ ñëpp ànd nekk benn donc loolu bi mu ko waxee tamit ñun ci lañ sol sunu daal fexe ba dajal tarixa yëpp murid xaadir jaan laayeen tënku ci génn buum ngir fas yéene ja maanaam noonu yooyu nga xam ne ñoo bëgg a jaxase bëgg ñoo tàqale duñ ko am te yàlla dimbali ci wax dëgg yàlla booba léegi ñi ngi ci ànd ci liggéey ba lépp lu xew ci réew mi dañuy taxaw lii am nag muy masalik jinaan depuis lundi ba léegi mboolem tarixa ngi fi daje euh, ci turu AES ñëw macha allah tabaraka ñun tamit ñu def ci liggéey boo xam ne danañ ko gën a yaatal ndax comité d'organisation bi dugal nañ ci comité scientifique bi ñëwee li ñu wax dañ leen wax ne comme mbir mi lépp ñëpp a ko bokk ndax Sëriñ Tuubaa li ñu ko tabaxal muy jumaa ji mu tabaxal ko yàlla subhaanahu wa taala julli ñëpp a ko moom ndax li lay wax julli ñëpp a moom mooy fi mu nekk ci Dakar ak fi mu placé ak ni nga xam ne noonu la ci jullit ñëpp daanaka dugale seen loxo gis ngeen suñu mbokk bi yu nekk Dakar ak ñeneen ak ñeneen donc kon moo tax ñu ne leen nañ fexe ba kon activités yi ñu def ci semaine culturelle bi na ca tarixa yëpp bokk moo tax jour bu njëkk ba waa Medina Baye ñoo fi ñëwoon di sant ba Ahmed Bokar ñu ngi sëtu sëtu Alaaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñoo fi ñëwoon di barki démb waa Ndiassane ñoo ñëw tey waa Tiwaawoon ñëw ëllëg waa Laayeen dañ biir kuréel gi borom fi nekk dem nañ ci yi def ay waxtaan macha allah ku mel ne sëñ Cheikh Baye Niass ku mel ne Mouhamad Kama Thiaw sëñ Babacar Cissé jaamal ñoom Mouhamad Khalifa Niass ñoo ñëpp ñi ngi fi di def ay waxtaan loolu lépp li ñu a a xam ne ñun ñëpp benn lañ tarixe yi ñoom ñëpp benn lañ ndax li ñu woote mooy ab yar li ñu woote mooy ñu woote mooy wéetal yàlla suma subhanahu taala kon ñoo ko bokk di liggéey liggéey bu rëy liggéey bu am solo bu bu sell moo tax alhamdulilahi rabbil alamin ñu bi di woo julli ñëpp ñu gën a ànd nekk benn rawatam tarixe yi fan yi fan yi gis nañ Euh, yoo xam ne saa su ne mi ngi upp mel na lu jaxase réew mi ba ci livre boobu livre Iba Der bi waaw livre Iba Der Thiam bi moom nga may laaj léegi livre Iba Der Thiam bi euh, ñun liñ ci wax rek waxoon nañ ko mooy dañoo bëgg ñu arrêté ko dakkal njaay mi retiré ko ndax fitna la nar a indi ci réew mi damay wax ne fan yi activité yi Masaalikul Jinaan gi rek moo tax nit ñi ne tekk waaye damay wóor ne bu jàllee affaire bi dana jógaat te bu jógaatee lay gën a métti kon nag ñu ngi woo état Sénégal bala bay way mbuus na fexe retiré téere bi dakal ko ndax moo joxoon ndigal ibader ci ñu bind ko financé ci te këri diine yépp ngi jàmbat ba ci seigne bass abdou rahad porte parole dégg ko reconnaître téere bi touba nak bu ko reconnaître reconnaître duñ ko yeneen kër ba reconnaître kon téere boobu jaar yoon ñun nak suñu war gër AIS buñ jógee di boole dañoo bëggoon ñu dund jàmm ak kon duñ nangu ay ñoo xam ne dañ leen jox ne la bind nañ histoire Sénégal ñu def ni def def loo xam ne xëy na ñu bari gisuñ seen bopp loolu duñ bàyyi benn nit wala génn kuréel bëgg a yàq suñu jàmm cohabitation maanaam pacifique bi ñu am ñoom ñu ko yàq livre bi jëru ko ndax mag ñi damay wax ne kenn ku nekk ñoom la la yàlla defal kenn mun la ko xañ kenn mun laa yokkul kenn mun laa wàññil kon lu nar a indi coow ci biir réew mi ba kenn ku ne wax wax dëgg yàlla nañ ko arrêté nañ ko arrêté dakkal ko bu ñu ko arrêté dakkal ko nag marche lay woote marche pacifique boo xam ne incha allah ñëpp lañ ci ànd tarix yëpp ngir ñu wax feex état du Sénégal mu retiré ko Iba Der Thiam deltuwaat ginnaaw ñu bindaat histoire Sénégal bañ koo yàkkamti ndax loo xam ne ay deux ans la kenn war koo yàkkamti ñaari at wala ñetti at wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu